bésub xaraday bu ñëwee ku tiitul doo gor turbine yéeni kaay ne ma bésub tiit bu jotee it ku tiitul daanaka doo nit la am ca Guinée war na tiital ñëpp yéeni kaay dee média bi ne ma coup d'état la ñu narati woon ca réewum Guinée Bissau président ba ambaloo di dalal xel yi ne am na ñu bëri ñoo xam ne faatu nan waaye sant yàlla nguur gi rëppeelul vox populi xam le nii moom ambaloo day ab coup d'état la daal di rëccee xam le ni situation ba mi ngi ci contrôle moom jiital gine Bissau ne ab coup d'état la boo xam ni waajal nañ ko mi ngi bàyyeekoo ci dogal yoo xam ne jël na ko façon yéene nag bakkan képp koo xam ne da nga fay jaay sineebar waaye tam ngay jëfandikoo ger amul waaye bakkan yafaroot sakkan na lool direct news ne CEDEAO ci boppam ñoo war a xoolaat seen bopp te xam ne coup d'état yi mi ngi bëgg jéegi dayoo CEDEAO ma nga xam ni mooy artu saa su nekk mi ngi seetaan takk der yi di jël nguuri te mënu ci dara militaire yi nag mel ni ku nawloo wul fonku ñu CEDEAO yëguñu ko sax te wax ji wax ji mooy réew moo xam ne askan wa mer nañu seen boolu muñ fees dell xool yay bëx bëxi ci métit yi xam ne njiit yaa ngi leen koy teg soldaar sa ñooy jël nguur ga foqarti ko andil jàmm a tardé CEDEAO moo a yëkkati daan yu tar teg ko ci ndoddu takk der yi ngir coup d'état yi wàññeeku waaye nag dafa mel ni daan ay daan ci këy dong ca noppee jàll ci leneen militaire yi daal fii nooy na mayeetunu Afrique sowu jant dara coup d'état sur Times ne réewum Sénégal moo war a jug ci boppam fipp gi nga xam ne mujj naa am niki Dembo Njaay ci Guinée Bissau mën naa nag rëcc ba laal nu ci MFDC yéene kaay bi ne nañu artu de Dakar Banjul ak Bissau ñoo war a boole si seenug doole teg nag takk der ya war yokk dooleel ñi nga xam ne ñoo leen di xibaaru di renseignement yi Sud Quotidien ne la war a mucc kay tey dëgg-dëgg mooy demi-finale suñu digganteeg Burkina Faso suñu gaynde yi nag ña ngay làmbaatu étalon yi Sud Quotidien ko xam le Tribune Sport ne ko gaynde yi nañu xam ne ñëpp a ngi seen gannaaw tey daar feet la ñu bëgg ndam L'Observateur ne la ñu bëgg kay moo ñu talal leen waxtu woowu la mandat yéen kay xamal ma ne Benno Bokk Yaakaar day tas na réew mi ci élection locale yi ak i ndam Ousmane Sonko ci Vox mel ni ku naan leen jaaxaan di tuut ndox day la tooy yaay njëkk lóor yéene kaay jox kàddu Bamba Fall bokkoon ci élection locale yi Bamba ne ànd nag gëm sa bopp am naa ci ndam te sama yaakaar ak sama ànd gëm sa bopp weesu na élection locale vision ak programme mooma booleeg Bougane fas yéene ànd ak moom ba 2024 critique yéene kaay jox kàddu Ibrahima Bakhoum journaliste politologue la Ibrahima ne bàyyi leen xel gëm sa bopp sonn ñu tàyyiwunu ñu ngi ci terrain ba te loolee jox na leen ndam ci élection locale yi te législative yi nañ leen xaar ak présidentielle l'exclusive yéene kaay ne ma ndam sa moo ci gën ngeen jàpp leen ni mooy meeru sàkkal fanweeri at ba mu doyalee ca mairie ba bëgg fa tegaat doom ja Issa Diagne woo nag Aminata Mbengue Ndiaye renfort Macky Sall woo renfort xale bu ñuy wooye Ousmane Sakal Dieng xale ba jugee France boole leen ñoom ñetti tër moom Ousmane Sakal Dieng nekk champion d'Afrique ak vice champion du monde ci Scrabble moom mooy maire bu Sakal bu yees bi matale yéene waa Sakal wi nga xam ne fanweeri at ñu ngi leen buuxu maire boo xam ne mar day taali l'exclusive yéene kaay ne ni képp koo xam ne waroon nga Khalifa Ababacar Sall gannaaw élection locale yee ñu génn daa ñàkk ci élection locale yi tribune ne ma élection locale yi jeex na waaye coow la jeexagul ca Pikine ña ànd ak Cheikh Dieng ña ngay xam le ni ndam la seenu ndam la ba def nañ recours vox populi ne ma woo nañu waa yeewi askan wi ak opposition bi ngir ñu ñëw jàpp ci Ousmane Sonko jàpp ci te naan Macky Sall soo yemalewul sa yoon gi ak na ngay doxalee réew mi soo moytul la amoon mars dana amaat libération yéen kaay ne ma benn recours bi tey mii de directeur général bu Sénélec xamle na ne ñetti bureau de vote foofee ci diwaanu Kaolack ànd nawle dañ faa andi ay xaj xaj yooyee ay militant moo tax mu sàkku sàkku ñu daal di seeyal ñetti wot yooyu avocat ànd naw la ci yéene kaay bi ne dëgg-dëgg gàcce fii la mën a yam loo ci mën ci dégg it l'observateur ma ngay xamal ne Macky Sall day tey jii soobu lool ci wàllu politique ak coppite ministre yi woo na leen ma Macky Sall suba gi ngoon gi mu woo parteem yéene kaay futur média bi ba tey ne ma opposition bi day ña ngay teg pression ci Macky Sall ngir ñu tëgg élection législative yi ci weeru juin assemblée nationale wala mbedd ba opposition bi nee ñu Macky Sall yaay choisir Aliou Sow ne man damaa yërëm président Macky Sall na mu war a doxalee mooy réew mënta doxaleeti ni chef de parti Ndiaga Sylla expert électoral ci turbine yéen kaay ne ak parrainage bi ak yeneen i mbir yi laaj te gum élection yi yoon waa ngi te wunte jaaree élection yi am ci weeru juin le quotidien le quotidien ne laataa loolu de sunu ndongo yi ñu crise baa ngi ci digg école yi ndongo yi ci seen bopp ñoo mujj génn di ñaxtu ngir jàngalekat yi dugg ci classe yi jàngale jàngalekat yi ni dee la nguur ga warloo ak ñoom bu ko deful duñu jàngale laas yéene kaay ne dëgg-dëgg ndongo yi sonn nañu dem nañu bay saraxu ngir jàng cause de boo nguur geeg syndicaliste yi ñu toog table mën a waxtaan source a xamal ma ne war ñu toog ci table bi ak Mamadou Talla waaye nag nguur la mu waxtaanoon ak jàngalekat yi la bëgg a tàngal ceeb jàngalekat yi nee nañ duñ ko nangu tey duñ ko nangu ëllëg ba tey saafara du ca yomb l'évidence yéeni kaay ne ma Bougane Gueye Dany day bind na président Macky Sall ci crise gi am ci njàng meeg njàngale mi xamal ko ne yow président Macky Sall say njaboot ñooy wax ak yow yow président Macky Sall ndongo yi say doom lañu say jarbaat lañu say sët lañu yow président Macky Sall waxal ci njàng njàngale mi ndax xale yii ñoo réew firi leen waxal ak jàngalekat yi neexal leen su ko jaree waaye suñuy doom dañoo war a jàngi ndax si ñoom la ñu yaakaar ëllëg l'observateur ne ma imaam Aliou Ndaw day ma ngay artu xamle na ni wooluwaat nañu ko te bés bu wuyjee la mu dundoon ca kaso ba boo moytul lu ko raw dina ko dundaat bu leen fàtte mukk ni Sénégal day jongante tey demi-finale ak Burkina Faso yàlla ñu ca yàlla may ndam te bu leen ni coronavirus it mi ngi ci réew mi te day faat yendu leen